auzu billahi min asheytaan rajim bisimillahi rahmaani alhamdulilahi rabbil alamin eh, point bu am solo nga laal moom nga laajit waaye dafa demoon Xorasaan xam nga Xorasaan Pakistan Hindustan yooyu yëpp ay réewu tantaan yooyu fala la Buxaari jógee ko ki tey hadis yonent bi sallallahu alayhi mu jàngal ko ñeenti junne njëriñ ba xeewi ko waa ji war a dem tàggoo ne ko dama bëgg a ñibbi mu ne ko waaye bala ngay dem dama laa bëgg a dénk waa ji ne ko defar bagage am ba pare ñëw jaar ci moom mu ne ko ñaata laa la jàngal ci ay njëriñ mu ne ko ñeenti junne njëriñ mu ne ko ndax nangu ma jox la benn njëriñ boo xam ne moo gën njëriñ yooyu lay tënkal sa tontu bi mu ne ko ñeenti eh, juróom-ñeenti junne affaire nga jox ma benn a ah, sëñ bi yooyu boo nga waroon a njëkkee mu ne ko dee loolu mooy yoonu xam-xam mu ne ko seen dëkk am nay xaj baatu xaj moom dafa doy waar <laughs> xaj xaj bàyyi nag nee na xaj ak a baax ne mu ngi yore juróom-ñaari jikko yoo xam ne kenn mën da doon wali yu te yoroo ko seen dëkk am na xaj mu ne ko waaw boo demee benn xaj topp la di la dàqee nooy def mu ne xanaa ma dàq ko mu ne ko mu dàq yàlla man mu ne ko xanaa ma dàq ko mu ne ko mënoo cee dëkk doo ma laaj nooy def mu ne ko bon nan laay def mu ne ko da laaj borom xaj ba nga dem làqu ci gannaawam sàcc mi nga may wax xaj la sàcc mi borom xaj la jëfi sàcc xaj la violence bi dem ci xale bu jigéen boo am juróomi at loo ci soxla kenn xamu ko nga tëdd ak moom du bànneex de mukk la àdduna du xalal de du sacrifice du dara kaj la rek <laughs> yaa ngi may dégg sa morom moom góor liggéey ba kii fàddu nga jaar këram lu ramaas la fa newoon yow xaj la rek sàcc la rek wala ah sa morom nit ni yow jur doomam dacca lu ne di ko yafal di ko yafal ba mu am vingt ans ba war a ñëw xaw baayam nga ne ko xàttal rek pour lan kaje rek ab xaj la rek boo xam ne amul borom wala <laughs> bon nag mu ne ko boo demee laajal borom xaj ba mu ne ko boo gisee borom xaj ba rek nga làqu ci gannaawam xam nga loolu lu muy firi mooy auzu billahi mina shaytaan rajim moom la bàyyi firi téere mi ñu wax tafsirul riyaada wala riyaadu tafsir wala ko ja borom koy mun a baagoogu aonsu bi bi googu mooy nga jël sa tànk lak ko ci bu gannaaw yàlla bi xam nga tey xale bu amoon problème ñu ko dàqee ba mu ci seen baayam wala yaayam rek day gaaw rek laxasu ko du ñëwee ci kanam day laxasu ci gannaaw ndax ci kanam mu ngi jàkkaarloo xaj baa ngi ñëw bon si billahi ca gannaaw lay féeto boo nee ci kanam waxoo dëgg nga ne auzu billahi min ashaytaani rajim mu ne ko ci nga boo waxee loolu mu na mu ne ko danga nga mucc ci xaj ba mooy jamono bii ñu ne pour ñu mucc ci violence gi ak xeetam ya ak a bëri mënu nekk muk te delluwuñ ci yàlla ak njàngalem yàlla ak diine yàlla ji ak njàngaleem Seydina Mohamad ak njàngaleem mag ñu baax ñu nekkoon senegal doo fàttaliku li sax Ahmad Bamba daj kañ nga koy daj doo ko daj te mu ngi nii tey lépp doomam ya koy lekk tey ay milliards rek lu ne doo fàttaliku li Alaaji Malick Sy moo tax gars yi bañ ko woowee di comparé ne ko xilaasu daab ak fàkkiyaatu tulaab <coughs> bu ci gën a neex fàkkiyaatu tulaab daan moo ci ëpp loxo alaaji Maalik ne leen yéen a ngi dendale ñaar ñu ñu dendul xilaat bi ma koy taalif booba laaxu Dakar boo amul sukkar sax mënu ma ko am te bu ma demee ba appli may lekk loolu laay doon fa ak erdu tulaab na fekk na ñu may defal njaram soow mu fat di ko sukkar xam nga ñaari duñ benn kooku fu mu tal xoolal yow kañ nga commencé am njaram sukkar boo ko buggee day buggatoo ko sax ñamu sukkar ñu bëri bugguñ ko xoolal ñooñ liñ daj xoolal baay dund moo bi muy toxu euh, lew na di dem foofu Medina xam ne taaliba yuñ mag yi ñooy xëy di wëri xam na garab gu ñuy wax neew buñ góorgóorloo léeg-léeg ci la ñuy sàkk xomb ko buñ ñëwee sang yi rek ñoo ci am ak tey Medina Baye kar-kar yaag macha allah kon nañ dellu ci yàlla nañ dellu ci njàngale yàlla nañ diin dellu ci diine yàlla nañ dellu ci njàngalem Seydina Muhammad sallallahu waaye nañ dellu ci suñu royukaay yi mane la bépp réew boo amul ñett ñi avancé wul mu ne ma ban réew foog ma yaay foog ñu jël suñu yaay delloo leen ca cosaan ndegam aljana sax doo fa dugg tey sa yaay hubbilu la bunt ba al jannatu taata aqdaamin umaat wax ma laak fii liggéey nga may wax fu ñuy jaar ba am liggéey te bu seen yaay kii ñu pej pej seen baay waxe ñu of ah fonk mu am yaay ne ma ak lan réew mu am fa réew fonk mu am jàngalekat waxuma jàngalekat boo xam nag intérêt boppam rek lay kaas jàngalekat bu bugg réew ma xam réew foog mu am royukaay foofu laa doon jëm ñun dañoo am royukaay bu doy sëkk yoo xam ne doy nañu ci saayir doy nañu ci baatin doy ñu ci diine doy ñu ci ngor doy nañu ci luñ liggéey fii doy nañu ci lu ñu yobu fële ci àllaxira am maa loo xam ne boo koy liggéey nag yàlla dana la ubbil bunt yi loolu dafa bëri waaye nit ñi dañ ko fi romb yonent bi sallallahu alayhi wasallam da daan wax ne ñetti walaaw rek kaamel la te mu ne Baye wax na ko ci téere bi Riyaadu ki foo jullee def fukki xul walaaw ak benn bu juróomi julli yi pare xam nga ñaata nga am hmm? juróom fukk ak foo jullee wax subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar fanweer na ñett juróomi julli yi boole ko yaa koy boole ah. yu yombangoo baax yaatu saalihaat xayrun inda rabbika subhanallah walhamdulillah wallahu akbar nga toog ba guddi wala ba àdduna yëpp kii la ngay wax nag sàmba xamut ca wàll dem ba xamut ca wàll yonent ba xamut ca wàll saaba xamut ca wàll yàlla kese walhamdulilah wala ilaha illallah wala akbar nga def ko 333 yow mos ko fan yi dafa mos ko rek soo demee ba sawar nag multiplier ko ñaari yoon bul ko romb nag ñaari lu mu laa dox du ñetti six ñetti six ku ko def te ubbeekoo dooto ubbeeku sa dund maa ko joxe fi man samay ñaan maa ngi ko jëlee ci hadisu naa Muhammad man yoruma yoonu Buxaaba ay yoonu talsam turuñ fi talsam Sénégal rek boo ma ko indi ne la ko bu mën a doon ci kaw suuf yàlla jox waaye man koo ma talsam man xaddis yonent bi comme tey baras musibo yu xam ma ci gom la ci Cheikh Ahmad Tidiane Seri waxoon tënk ba mu ci waxoon musib feebar yi feeñ aw ah, allo bu ko minal baras mooy puune bu mu mel ni Saliou Keita Saliou nan la waaw baras boo minal junoon ak dof dof yu bëri nag fu mu ne drogue la doole ja drogue la boo minal junoon wal jusaam jusaam mooy feebar boo xam ne day dagg kii comme na mooy jëbët tey day ngaana ngaana loon nit xam nga buy sekkare ba xam nga buy sekkare ba dëgg dëgg nga na boo ko doon wax bés bu ne rek alumine a'uuzu bika min sayyil asqaam ak mbooleem feebar yu ñaaw si daal lu ko gën a bon ñu ne borom dootu wér feebar bu dul rek baaxul cancer nag lu ko gën a bon min sayyil asqaam bépp feebar bu ñaaw yonent bi moo ko wax te ba koy wax mu ngi taxaw ci géej goo xam ne garabu gi ko tiim mu nga sëq leer nañ jibril moo nekkoon ta gannaaw di ko niital <laughs> mu ne alumina ausbuka min al barasi wal junooni wal jusaami wa min sayi al asxaam sanaamata ñaan sëriñ boom ñooy dafa indi cokket ga moom daf ko jox mbindeef yàlla dafa ñaan yàlla mu bindal ko mbindeef moo xam ne feebar moom mooy ŋar rek mu wan na lépp ñëpp ko war a jàng waaye dafa jafe baari sax moo njëkk a jafe aluma sëkkin sadamata qahramaanu jabarut bi altaafika alqafiya alwaarida min baabil malakut hatta natasabbas bi ali bi asyaali lutfika wa naatasim bika wa naatasim bika ah yaasal qudra alkaamil wa yaasal rahma saamila yaa sal jalaali wal ikram benn jigéen sax ci jamono Soxna Mati Jaan ñun baabu malakoot phase dafa am bunt bu ñoom baabu malakoot bi Soxna Mati Jaan waxee loolu ndekk yàlla dafa dajjal mu ngi xam mbindeef benn jigéen boo xam ne mu ngi feeral wilaaya mu àggul ci xutbaan yi ndax Soxna Mati Jaan kenn mënu nekk ci ronam di nekk xutbu hmm, hmm. ndaw sal mooy dem ca baabul malakoot rek toog nga mu ne feebar bu ñëw rek mu woon na ko <laughs> mbaax gu ne doon nañ ko ñun ñoo bëgg da baax xéwal gu yàlla jox nañu ko waaye ñun ñoo bëgg da jëriñu royukaay bu set wecc sell baax yàlla jox nañu ko waaye ñun ñoo bëgg da roy yal yàlla may xelam roy ma fàttalaatal la yow mi nga xam ne amoo liggéey bugg di jàpp ci dara yonent bi jàngale na ñaan boo xam ne dafa jar nga bind ko man na maa lay ñaan sa Dakar net bi booy dugalati yenn yi comme ñaan bi ma wax léegi nga fexe ma bind la nga bind ko ci tubaab léegi tey sa affaire bi dem dégg nga kooku moom biti la waaw waaw koy bind comme bi ma la bëgg a wax nii maa ngi la bëgg a benn ñaan boo xam ne Cheikh Ahmad Tidiane Chérif wax ci wàllu hubbeefu tam yomb lool boo xëyee def bisimilah rahmaani rahiim téeméeri yoon boo man mënut baal bisimilah rahmaani laa hawla bul wax wala waaw nga de bul wax wala hawla de wala hawla kooku tiitaange la <laughs> laa hawla rek nga wax wala quwwata illaa billaa al alisim yonent mi na faaj waxut jël ñu embauché waaye bu ñu la embauché nga am place bu baax am euh, kii bu baax salaire bu baax ñi ngay liggéeyloo bugguloo bugg la des na yu bëri de te doo fa feebar mooy laa hawla wala quwwata bi billah ala aliasim yonent mu ne téeméer yoon wala mu ne boo yàkkande nga def ko juróom-ñaar fukki yoon nee na xanaa xamoo ne aljana xëllëg garab ya fa ne ñu leen naa jëmbatee lu ñu leen a jëmbatee la hawla wala quwwata illa billah kon yow lu ñuy jëmbatee aljana garab yooyu mënoo ci jëmbatee ay paquet xaalis <laughs> wax dëgg yàlla mënoo fee indi sirop joxe gu ma ko fenn sirop bu gën laa hawla wala quwwata illa billah al aliyul azim mënoo ko am moom la ñu jëmbatee moom la ñuy roosee garab yi ci aljana yi lëg xam nga li ma koy tëjee des yonent bi waxoon yow mi bëgg liggéey mu ne xam nga ñaata lay dàq mu ne dana dàq juróom-ñaar fukki jàngoro boo gën a néew ca jàngoro yu garaat mooy jàngoro ñàkk kon bon waaye loolu doyul la damaa toog suma kër gi benn bés benn jigéen ñëw fi xam rawaan la xam dama naa ma rawaan waaye daal mu jigi jaaxal na ma mu ñëwee ma doomi suñu Aliou Dramé ca Busra na ma dama laa soxla fekk sama soxna yëpp kenn ne ko mu ne alhamdulilah comme jigéen ñi kat li ma laa ñaan daan ngir yàlla nag mu ko defal maa ngi naan waa kii soxna si lu ma sa jabar yi dañoo génn ba pare ba pare nee li ma laa ñaan bul ma ko ñàkk defal mukk ma ne waa kii mu pare mu ne ma dañ ma xebal ci yow nan naa la wax laa hawla wala quwwata illa billah al aliyyil azim ñetti junne rek laa bëgg bul ma gàntal mukk ma ne ko yow kay boo bëggoon fanweer sax ma jox la tax boobu xam naa ko maa ngi tukki compte ñetti junni jox ko mais ji nga laa xawla wala quwwata illa billah su ma doom sa yaram tayalatee nii rek tayal jàppal ba sel rek baat bi nag laa bëgg nga seetlu ñu firil la ko doo ko wax noonu dem laa xawla del pexe génneel ma pexe ci jëf doomu aadama bu ñu xeewoo ba ba ñuy tëdd génneel may pexe ci seen yëngu waaw ah, benn ma pexe ci jëfi doomu aadama la ca gën a garaaw nag ña ca yore pexe yu bon mu ne laa hawla déet pexe wala quwata déet kàttan mooy force waaye xamoo pexe xamoo kàttan ku fa des illa billah muy leçon waaja joxoon ca xarasaan baagoogu nga loolu nga jël sa tànk dem lonk ko ci tànkam yàlla mooy déet pexe déet kattan ndara ci yàlla xam nañu jiit ak alaalul ko kooka mooy melokaan rek ci melokaanu yàlla ndax yàlla dafa kowe te doomu aadama loolu lay wër alaali voilà ñëpp moom la ñu wër monte grade al azim nga dem ba nekk monte insaan azim nag mënoo koo doon mukk mukk te monte goo grade ba commencé fayeku li ngay xam xam xaalis sa kër gi commencé neex kii bi kii ñu ne grandeur pour être grandeur ah foo am na état bi yu bëri jaar état bi nag ba ci gën a gaaw mooy laa hawla wala quwwata illa billah al aliyil azim téeméeri yoon waaw boo ci saware nga tek ca ne laa ilaha illallah malikul haqqul mubin malikul haqq sëñ Tuubaa def na ci xasida moom day dàq ñàkk waaye laa hawla wala quwwata man boo ma nanguloon a déggal xam naa doo man ndax yaa ngi am yeneen jokkuwaay ndi kon bés ni ki tey bu moyee say wirde xawla wala ko bu sa yaram diisatee rek tëdd rek ngob sa kurus bala nga am ne sax sa yaram naa diis man dama cee gis lu ne mën naa ci joxe it lu ne ci àdduna moo tax laa xawla bàyyi na laa maala wala jaaxa wala xawla wala <laughs> moom noonu lay laa xawla wala moo lay firi lay bàyyi ni mu firi laa xawla wala quwwata illaa billaah c'est moom sa yaram day daw laa xawla laa maala laa jaaxa la ko voilà voilà moo tax baat boobu jox ko xale yi ku bugg liggéey nga ne paa bu ñoo paa Jim Lo paa Mouhamed Lo moo ko joxe waaw laa hawla wala quwwata illa billah na koy liggéey li koy liggéey bariwut mooy rek téeméer téeméer donc doy na moo am li mu bugg na yàlla dafa leen barke eh, seen Dakar net bii yanam nekk nekk net yanam netaal netaalam xam nga netaal xam nga netaal mooy photo mag ñu ñoo ko daan wax netaal yanna netaalam mooy net gii yanna netaalam fenk ci roon jant fu jant a yegg rek yanna fa netaalam yegg ñaan naa ko ci téere bi ma yore ñaan naa ko ci barke baay ñaan naa ko ci jëmm ji ñu doon waxtaane muy Cheikh Idaam Alaaji Ibrahima Niass ñaan naa ko ci leeru yàlla gi gi nga bàyyi ni mu firi laaw la mun a laahel ma déet xam-xam laa xaala état baaxut wala jaa amul daraja wala xawla déet pexe wala quwata déet kàttan lil hab di ñeel jaam wala wala